nu mbokk dimbali ci mbàkk dimbali nu mbàkk dimbali nu mbàkk dimbali nu mbàkk jërëjëf bëgg nañ liggéey sëriñ Tuubaa fii bëgg noo xam ne noo xam ne ko seede yow rek lañ ci yaakaar yow rek lañ ci yaakaar yow ñu rek lañ ci yaakaar yow bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al ulya loolu dong mooy liggéey bi alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Tuuba sëñ Muntaxa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla boole ca foofee muy dem yàlla na si yàlla boole ñun ñëpp nag képp koo xam ne xool sëñ Tuuba xool xool sëñ Tuuba ga yëpp biir ñu jaa ngi bokk nga ci ñaan bi bis ba waaw ba bis ba fa sëñ Tuuba di demoon ba bis bi ci bis ba sëñ Tuubaa demoo yàlla alhamdulilah yàlla na yàlla boole ca foofee muy demoo de xam naa ne 86 ak léegi mosuma xam fu mu noppaloo. waaw ah, fa <laughs> wut si am na mu naan gëmu feebar bu bëree bëri boo xam ne ñun ñëpp dañ koy feebar. Hmm. moom daf cee faju woon. muy feebaru complexe. gis nga nit. Hmm. bis boo fajoo ci complexe ba wér. Hmm. mën ngaa doon ku nekk. personnage bu ne mën nga ko doon aata dafa dafa dafa faj woon ci complexe. bu fàtte ni sëñ Atou ci génération bi nga xamante ni ci la ñëw daa fekk boobu intellectuel yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a mag rawatina ñu tolloo woon ay courant commencé ñëw. loolu liggéey bu Hizbut Tarqiyyah la waaye ci ndimbal loo xam ne sëriñ Atou Diagne moo ko moo ko liggéey. li jafe ci àddina nag mooy tàmbali mbir yeggale ko te ku ne xam ne ni sëriñ Atou loolu la ko sëriñ Tuubaa defal mooy mu tàmbali mbooloo yar leen ba ñooñu xëy doon ay bijaaw am ay sët te mbooloo moom dara mejju ci ñuy gën di bëgg sëriñ Tuubaa di gën di tege ci siraatul mustaqim ba tey lii mu am ay jàmbaar yoo xam ne yii amuñu guddi amuñu bëccëg amuñu amuñu amuñu amuñu amuñu benn moment boo xam ne bii jëluñu ko consacré ko sëriñ Tuubaa boo xam ne kii bu tarxiya bisa nii daaraa ngi nii gaañaa ngi nii wër ma lii mooy isbu tarxiya loo ci nattable dana la wóor tey. tarxiya ñëpp ay aatu lañu lu nekkan ci moom muy ci koo mën a gis ci xale yeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñëpp moo tax dara nag jërta ndax liggéey moom liggéey bu sëriñ bi la moo leen téyel kenn tey woon ku bi te mooy continuer di leen téye. bakkan ak alal la aatu joxe dafa joxe addunaam jënde ko àllaaxiraam bi mu génnee université yor ay këyitam. mën a fay ci mën a doon lu ne ci réew mi la njëkk fam ne këyit yi daal ginnaaw dama ko doon jàng naa ko def gopp bu may liggéey la sëñ Tuubaa jaayante koog sëñ Tuubaa bu ma ci fayu weer ñëw teg ko ci loxol sëñ Abdou Lahad na ko fas ma ci yéene fayu weer dama cee fas yéene liggéeyal sëñ loolu it wane ne euh, li mu dund ci àdduna yi dund gor la ndax yonente bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne euh, moo gën ñëpp dund lu toll noonu waaye fan wu gudd ajuwul ci at yu bari fan wu gudd aju fan wu gudd mooy jëf ju te xam ngeen ne marqué na ay apprentam ci histoire fi ne tey am na ko dund téeméeraat ba sunu bisu tey bii am na ñoo xam ne xamuñu am na ñu dund nangam nangam waaye moom Sëñ Aatu li mu dund lu mu gàtt lu mu dund lu mu bari moom lu mu fi doon saxit bu doon dund junniy at day gàtt ci noonu ndax njariñam moo ni tolloon jëfam it moo ni tolloon kon fan wu gudd mooy jëf ju mat te moom jëfam mat na taxawaayam mat na. li mujj ci liggéeyu Sëñ Aatu te ëpp ci solo mooy këru xasida yi te xam ne li Sëñ mission bi mu mujj am mooy këru xasida yi mu ne ca di di ca gar bakkanam ba taxawal fondation bi ba mu dëgër ba mu teg ko ci yoon woo xam ne wóor na ko ne lii dutu taxaw moo leen gars yi bagage yaa ngoog maa ngi dem àjjana. gën a marqué sëriñ Aatu ci nit ñi. mooy soo ko gisee ñun ñii day ndaw am ay ñeen fukki at juróom fukki at. moo nu gën a kàttanu ci sëriñ bi. te juróom-ñaar fukki atam benn ci des. kon xam nga ne ay atam bari woon na. waaye bu jógee jëm ci sëriñ beeg laxasaay gi danga naan kii xale bu ndawal pëstéef beeg kattan geeg lépp day feeñ ci day feeñ ci sëriñ Atou. mbari lislaam ji nga xam ne moom la ñëpp ñaan mu yàgg fi ci wér di sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha ni mu demee woon ak daara ji ni mu demee woon ak sëñ Atou la tax sëñ Atou wàccut ci jamonoy doomi sëñ Touba yi lu tax sëñ Atou wàccut ci jamonoy Cheikh Sidi Mokhtar lu tax wàccut ci jamonoy Cheikh Mamadou Lamine lu dut ba sëñ Touba doon sëñ Touba di Cheikh Mamadou Mountakha mu wàcce ci ay loxoom loolu itam exemple la bu rëy kon la ñuy gis ne tawféex lépp tawféex ndax wàcc xalifa général de Mouride Cheikh Mamadou Mountakha ñëw taxawu ko nga gis ne gis nga rob bu nekk waaye tey ndaw ñeek mag ñeeg góor ñeeg jigéen ñi kenn ku ne am yéene yëg ne am na lu bàyyi ko ci sa biir xol ngir kii fi bàyyi ko loolu wone ne jëf ju rafet rek la Serigne Atou daal yoonu Mouride jëmu ko ndax ni moo doon a taxawee taxawee na ko diine lislaam ji jëmu ko ndax ni moo doon a taxawee ci diine lislaam taxawee na ko li moo doon dundal ci bokki taalibe bi yëpp dundal na ko lii daal misaal la li ci nit ñu war a jàngee daal mooy ñu jàng ci ne liggéeyal Serigne Touba rek a wóor liggéeyal Serigne Touba rek a wóor la sëñ Mahamadou Dem waxoon ne Serigne Touba li mu yor li ciy tax a jariñu mooy def ni Ibra Fall def ni Cheikh Ibra Fall ci tax te noonu la suñu àtt daan jaxal wax dëgg fa yàlla kon yàlla na ko yàlla na ko yàlla fayal boole ko ci ñi nga xam ne alquran day wax ci ñoom ne wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikuhu almawt faqad waqa ajruhu ala allah asalaamaaleykum yaa ngi leen am xaas. yaa ngi leen di am xaas. dañ dafa def ci moom loo xam ne. boo dafa def ci moom loo xam ne. ñëw na gën la ñu ko def mun mun ko def loolu moo waral la loolu moo waral la ñu ko liggéey bi ko liggéey la rek liggéey bi noppee liggéey bi noppee moom sax moom sax yëg na ko yëgu ko yëg na ko yëgu ko dafa mel ne fi mu toll woon. dafa mel ni fi mu toll woon. li weesu gisatu ci woon dara. li weesu gisatu ci woon dara. ndax fa fa fa fa fa métti bu rëy. ndax fa bu métti bu rëy. fas yéene gën a liggéey seen tubaab. fas yéene gën a liggéey seen tubaab. foofu la demee. foofu la demee. xam ne yàlla moom day fi jëf. yàlla moom day suul jëf. jëf la te jëf la. waaye day fay yéene. waaye day fay yéene. kon yéene jooju. kon yéene jooju. yàlla jëfam jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. yéen ko jëf. fu ko jëf fay ko yéene. fay ko yéene. kon ñaata ngoog. kon ñaata ngoog. sëñ Mountakha ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. di tàmbale rek. alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Touba. alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Touba. alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Touba. ndax ñun de danoo gis ni ndax danoo gis ni de adduna euh, sosoo ba tey ba adduna sosoo ba tey kenn def fi lu gën liggéey sëñ Tuubaa kenn def fi lu gën liggéey sëñ Tuubaa te liggéey sëñ Tuubaa rek a fa war a am te liggéey sëñ Tuubaa rek a war am te ñun de bëgg nañ ko lool bëgg nañ ko lool te barab bii nag wóolu nañ ko ci te barab bi wóolu nañ ko ci ak jëmmam ji ak jëmmam ji moom fi ñu gis ni. rasulullah sallallahu taala wa sallam. rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. li gën ci alal yoo xam ne alal alal xalaal kese la. li gën ci alal xam ne alal li gën ci alal. li gën ci alal ak wërsëg. ak wërsëg ak xéewal. ak xéewal nga xam ne xalaal kese la. nga xam ne xalaal kese la. te xalaal ak makruur mu nekk ci di tifti si rek tam sonoon te xalaal ak makruur mu nekk ci tifti tam sonoon la ci sëriñ Tuubaa am te jële ko ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam la ci sëriñ Tuubaa am te jële ko ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ñun de sëriñ Tuubaa ñoo ñoom ñoo ñoom ñun de sëriñ Tuubaa ñoo ñoom lanu ndax mu yàlla wala yàlla ajdur ndax yàlla wala yàlla ajdur ajdur an yu xasasa bi xayri yëndu an yu xasasa bi xayri yëndu xéewal yooyu nga xam ne sëñ Tuubaa mi ngi ko jëlee ci Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam xéewal yooyu nga xam ne mi ngi ko jëlee ci Rasulullah sallallahu taala dagoon nañ ci darajee barab bii dagan dagoon nañ ci darajee barab bii ñu jagleel la ko ñu jagleel la ko xëpp la ko xëpp la ko ndax kon danañ ci am ndax kon danañ ci am nañ ci fanal am na kuréel sonn nañ ci diggante boobu. xalal ak makruur xalal ak makruur. xalal kese la ñu soxla. xalal kese la ñu ànd ak yow. ñu ànd ak yow def Touba. def Touba mislas miha. mislas miha dëkkam bu tedd bii. dëkkam bu tedd bii di turandoom ba ca àjjana. di turandoom ba ca àjjana. teel nañu te wax nañ la ko fii ci. teel nañu te wax nañ la ko fii ci Fawzeyni. dimbali nu Mbàkke. dimbali nu ci Mbàkke. dimbali nu Mbàkke. dimbali nu Mbàkke. dimbali nu Mbàkke jërëjëf. bëgg nañ liggéey Sëriñ Touba fii. bëgg nañ liggéey Sëriñ Touba fii. noo xam ne noo xam ne adduna sëpp dañ koy xam adduna sëpp dañ ko seede te yow rek lañ ci yaakaar te yow rek lañ ci yaakaar yow mii rek lañ ci yaakaar yow rek lañ ci yaakaar sëñ bi ginnaaw mukk ci àdduna. jërëjëf duna daw jërëjëf jërëjëf. ñu ngi bu baax a baax. di leen sant. dégg nga wax ji gis nañu jëf ji. da ngeen di seere. saxaaratu suuri. saxaaratu suuri mooy seere fan. dinaa loola. si kabaay yi gën a bokk yi gën a màgg ci bàkkaar la bokk. saxaaratu suuri. si kabaay yi gën a bokk. moo tax noonu koy teer fukk na ko yéene def. kon nag. وما سيدنا إلا بما علم وما كنا للغيب حافظين ñooñu seere nañ ñoom ñi ñu doon jëfante ñun am nañu waxal dara jënd ko ci ñun boo ko jàpp loolu wax jàpp nga ko loolu jëf xanaa jàpp ko loolu jot maa jàpp loo dégg te moom yàlla tëdd na ko seere nañ ñoom ñu ne ana ñeneen sëñ Tuubaa jëf su ñu ngi jëfe ci daal yi mënuñu ko ñun ñu tëj ci la waaye mu fiy sol ba muy sëbax rek jigéen ji muur ba doo gis awraam lii lañu xam dul ay intégriste lislaamu sëñ Tuubaa tak de yi takkul deret xamu ko ki amoon maanaa ci lislaamu iblis la jëflanteel da ko rend ba mu gàddu ay loxoom di yuuxuy dem lu nuy doyee rey suñu bakkan yi doy nañ ci lu ñu rey lii moo tax bisub Serigne tubaab bi amul fu ñu ko yemal yéen a ñu dugal ci école yi dem nañ ci tey ji Pâques lañ gën a xam màggal Saint-Sylvestre lañ gën a xam ci màggal Noël lañ gën a xam ci màggal bis yu bon yépp moom lañ gën a xam ci màggal ana luy ndeyam ngeen defe nag loolu pour dindi ko dañ leen di xaar munu nekk duñ leen xaar duñ leen laaj ñëmbal te dina deñ dina deñ dina denc sëriñ bi yaa ngi nuy dégg say nopp jotal na lool sunu kaddu gi yuqi ko na nga ne na sunu borom yuqee woon kaddu sidna ibrahim muy woote ca Makka naan ko waaw waaw gox yu sore yi nu ñu may déggee mu ne ko sa yoon néew ci maa koy def sunu kaddu yi ñuy wax déglu ko néew nanu mais barkeel ko màggal gi nan ko eggale fu ne sa lii nuy woote na dem ba foo laafu sidna Jibril egg na fa egg